Euh, mun nañoo euh, avancer peut-être euh, wax ci tukki président Bassirou Diomaye fay bi mu amaloon France gisee que le président Emmanuel Macron bi mu ci génnee ndaje moomu donte wàllu vaccin moo ko yóbbu woon waxtaanee nañu quand même jëflante gi diggante France ak Sénégal président Emmanuel Macron wane ne am na yaakaar relation bu bees judduwaat un nouveau partenariat tey sunu digganteeg France ci rupture bi ñuy wooteeg fi jamono toll ak fi Sénégal toll naka la war a demee. suñu relation bu ñu ko doon soppi tey lana ci war a changer. merci euh, ah bon Emmanuel Macron moom am na lu ko doy fii mu ne sax déjà <laughs> <laughs> moom am na lu ko doy. Mm. attention am na lu ko doy. Eh, xaw ma nu mu nar a demee en tout cas bon le nouveau front populaire ñu ngi ñafe pour mm. extrême droite bañ a bañ ñëw mais affaire bi am na nu muy demee Macron ci boppam sax. day dégager ah. ah parce que yow tas nga assemblée bi. pour combattre front national. Mm-hmm. supposons front national ñëw. saa waaye am majorité écrasante. lu Macron di def démissionné lay def. donc kooku am na lu ko doy. deuxièmement euh, Macron mënta xalaate neneen rapport France ak Afrique francophone. Hmm. mën ko xalaate neneen bu ko mënoon. depuis 2017 mu def ko defu ko ñun ñoo war a xalaat suñu rapport naka la war a demee ñu doxale ko noonu kon ñun la ñun la ci ñun la aju euh, mel na ni mu loolu wax naa ko hmm. Diomaye euh, man dama kontaan ci ni mu doxale ok ah oui, oui, àddina àddina dafa dafa sew mm-hmm. foog nga xam fi ngay seg teg sa tànk saa su ne ak ni nga koy tege euh, ñii li ñu wax ne moom la ñu bëgg boo gisee man euh, ma ne dama leen di jàppale suñu parti mm-hmm. dañu leen di jàppale c'est parce que ñun bu ñu toogoon lii ñu wax le moom la ñu nar kon ñun loolu la ñuy def mm-hmm. kon jàppalewuñu leen pour lu leen neex bon normalement nit ki boo koy jàppale xolam dina ci mais loolu yëkkatiwunu li ñu yëkkati mooy dañu ne dañu fas yéene li war a dagg ñu dagg ko li war a taxaw ñu taxawal ko li ñu war a suuxat ñu suuxat ko moo tax ñu di ci jàpp kon euh, dafay jaadu euh, bu fekkee ne gis nañu lu jëm ci direction boobu mhm. nu jàpp ci joomaay euh, bi mu demee d'abord du visite d'état def na voyage yu bare ci biir Afrique mm-hmm. gars yi ñëpp a ngi xool waa waaw léegi bu jógee génnee Afrique fu mu jëm nit ñaa ngi doon seet loolu di mm-hmm. bu demoon feneen fu dul France ñu ne ah dogoon nañu ça y est c'est la rupture dogoon nañu et cetera comme alors que mais loolu ñun yëkkati wuñu enfin waruñoo yëkkati de. Mhm. ay dogoog nit wala keeg nit non non non non non. Mhm. daan defe naa ne moom noonu la ko defe donc mu dem naa dem na France waaye du visite d'état mhm. kon euh, wolof yi dañu naan euh, bu sëlu yooy bu giir demeek neen voilà maanaam boo rattee sëll na am dara mhm. yow nga am dara noonu la ko doxale euh, gis naa sax ñuy commenter ci col gi bon man bu doon man ak man du ma wax wax jëm ci parce que c'est un décomplexé c'est-à-dire il n'a pas ce problème-là mm. c'est il n'a pas le problème mm. mais ñun waruñu am problème franchement Euh, tubaab bi nañ seet seen affaire nuñ koy doxalee ak nuñ ciy taxawee nu seet suñu affaire nuñ koy doxalee ak nuñ koy taxawee nuñ ciy taxawee c'est ce que le président a fait mais c'est très bien moi je m'en suis félicité euh, oui waxtaan nañu la ñu waxtaan nag jotagut pour di ko xam wala fu mu jëm wala lii wala lee wala lële mm-hmm. je crois que en tout cas s'ils son malins les Français que ça soit Macron ou demain quelqu'un d'autre en hmm. France c'est de comprendre que c'est terminé cest hmm. à lu jeex da ngay xam ne jeex na nga seet lu bees bu dul loolu da ngay guddal jël et actuellement euh, la France l'Europe le monde en général d'ailleurs occidental loolu la ñu war a comprendre hmm. en tout cas euh, le président Diomaye Faye a très très bien mené cette affaire moi j'en suis très lan moo la ci gën a marqué lan moo tax nga ni da nga fier ci ni mu doxalee non xam nga sànq yaa ngi may laaj euh, lan la war a jur te ma la ne ci kanam lañ koy xam donc nekkuma sax di wax ci affaire relation bi lan lay lan lay war a jur ak hmm. mais déjà rek Euh, ni ñu koy waxeeti. ni mu demee. Euh, waa ni mu demee c'est-à-dire le visuel. visuel dafa am solo. Mm. visuel dafa am solo. et donc euh, dem na France toog na ak Macron wax na ci vaccin yi seeti na Abdou Diouf c'est bien. loolu itam lu ñu war a rafetlu la. ah oui bien sûr dem ci Abdou Diouf. bien sûr maanaam. réew boo ko bëggee supparñi ah non du ñaari ñetti nit a koy supparñi de non non réew c'est l'écrasante majorité de la population ñooy taxaw li ma doon wax ca début ba mouvement d'ensemble effectivement bu ko defee nga mën a changer ko ci sens bi population yi bëgg et ci délai bu bu dul gudd hmm. euh, loolu nag soo ko bëggee def da ngay yaatu da ngay yaatu lool lool lool euh, euh, parce que euh, li xew 24 mars ñu ne révolution démocratique attention Sénégal ñu bari nañ jàppoon ne day takk mhm. gis nga ni mu demee macha allah kon dañ ko war a prolonger parce que bu ko prolonger wut bu amee safaan ba moom dafay metti trop kon euh, yaatal googu euh, euh, Diomaye da koy wax ci discours yi moo war a am le fait que mu seeti président Abdou Diouf c'est important c'est de wane ne bon moom il ne pas il n'est pas il n'est pas concerné par affaire yooyu ci xewoon démb ak bërki démb mm-hmm. tu alors c'est c'est c'est bien dégg naa sànq maa ngi liir mu ne ci tabaski gi téléphoné woon na président Wade jox na ko xaar nangam na c'est bien euh, noonu la war a demee hmm. bu demee noonu ba pare nag waaw kay li nga bëgg a lijjanti nga lijjanti ko bu boobaa ñi lay contre day néew parce que ñëpp dañuy d'accord ci ne yow lii nga bëgg a lijjanti moom la ñu war a lijjanti mais mais tey président est-ce que euh, parce que tey sénégalais yu bëri ñu ngi ñu ngi am un une petite doute par rapport ak coopération euh, bi nga xam ne Sénégal war na ko am ak yenn yenn.